salaamaaleykum am internaute salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV tey ñi ngi fii ci diwaanu Moldis ñu yëg ni lakk-lakk am na fi ñu jàpp ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon pour ñëw yëkkatil leen bépp information boo xamante ni am na fi kon sama caméraman da nga may topp ñu def ko de nuages et de fumée toxique. L'extinction nous a pris un peu plus d'une heure de temps, parce que nous avons été alertés à dix h cinquante minutes et nous avons éteint le feu à 13 h cinq minutes. man maay commandant mam Diène Ndiaye man maay commandé groupement des unités spécialisées bu brigade nationale des sapeurs-pompiers ci intervention bi tamit man maa diriger opération de secours yi ñu alerté sapeur pompier yi nekk port 10 heures 50 minutes lañ leen alerte ñu def juróomi minutes egg si ci incendie bi biñ ñëwee tamit gis nañ ne euh, lii lakk entrepôt la c'est-à-dire benn hangar yoo xamante ne dañ cee déposé entreposer ay produits chimiques yoo xam ne dafa bëri donc am na ci ay produits yoo xam ne c'est des produits de première classe yoo xamante ne day exploser mën naa exploser euh, yeneen produit yi xeetu produit yi produit troisième classe la yooyu de c'est inflammable day lakk et puis produit yooyu yëpp suñu lakkee euh, dañuy dégager fumée ak nuage c'est des engins spéci d'incendie ak ñaari échelle yoo xamante ne soo leen xoolee ni euh, ñoom ñooy fay par incendie bi ci wàllu personnel ñu ngi engagé cent 112 sapeurs pompiers parmi 112 yooyu am na 16 euh, officiers donc xaw nañ am quand quelque jafe-jafe bon beneen jafe-jafe bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy problème mu bouche d'incendie yi site bi amul bouche d'incendie te loolu du yombal liggéey bi oto bi nga yor suy fay su jeexee faw nga wuutiwaat ndox laata ngay ñëwaat. làkk bi du la xaar donc ça nous fait perdre du temps beneen bi aussi mooy lio bi installation classée la protection de l'environnement la donc les produits yi ci nekk dafa am nuñ ko waroon entreposé te yooyu am na ay manquement ci wàllu construction bi également am nañ ci ay problème parce que dañu am difficulté d'accès yooyu yëpp ay xeetu jafe-jafe la yoo xamante ne mun nañ ko saafara à l'avenir pour que pompiers su ñu ñëwee ci intervention liggéey bi gën a mun a yomb. doxe lakk bi nag ñun xamuñu ko mais xam naa ne police wala gendarmerie ñi nga xamante ne ñoom ñoo habilité pour mën a enquête dinañ def seen enquête xëy na ñoom mun nañ koo xam.